jërëjëf monsieur le ministre asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu camarades yi fi toog yëpp xam naa li ñuy tënk dootul bari ndax lañu waroon wax yépp wax nañ ko dañuy gën a feddali rekk taxawaayu Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne li ko waral mooy lu ëpp day daal di tuuru te mbir mi nag dafay bëgg ëpp ndax réew moo xam ne saa bu ñu ne élection ñu ngi koy dëgmal depuis daanaka 2017 ba léegi ñu ne dinañu xoqatal nit ñi danañ leen tiital ba képp koo xam ne sa bëgg-bëgg sa yëg-yëg am nga ko doo ko sañ a wax loolu foog ñu taxaw ci bu ñu jàppee rekk élection locale yi ñu mujj génn gis nañ ci ñaawteef yoo xam ne jàpp nañ ne lenn waralu ko lu dul xamadi ndax bu ñu jëlee li maire de la ville de Dakar def muy le maire Barthélémy Dias kon ndeke la Yewwi Askan doon wax ne ñoom seeni maireu bopp lañ danañ dem ba créer seen association maireu bopp wa dëggal na ko ndax bi mu jógee di dem bu jàppoon ne population Dakar la représenté du dem ba direction générale des élections des élections poñe fa ñi nga xam ne ñooy takk der yi damay fàttali ne képp koo xam ne da nga yor parti walla coalition am na guide formation boo xam ne jagleen nañ ko mandataires yi ci processus électoral bi nan la war a demee ci élection législative yi ñu dëgmal administration bi tëjoog ñoom wan leen naka la ñu war a defaree liste yi lan mooy seen taxawaay kenn ku nekk lan mooy sa sañ-sañ ba ci mandataire yi waaye waaye ñun bu ñu neexoon Benno Bokk Yaakaar ñu dem taxaw buntu DG ndax yàgg nañ di gis élection ñun ñëpp dañ doon demandoor ànd ak suñu mandataire ak ay liste ñu taxaw mais dañu jàpp ne la nga xam ne sénégalais yi moom la ñu tollool tey te mooy teg yoon réew mi ci yoon ñu doxee ko kon bu fekkee ne administration bi def na loolu ba pare ñoom ñu dem déposer seen liste ñu ne ñi ngi toll ci saytu parrainage ñu saytu parenage ñoom waa Yewwi Askan Wi nga xam ne tey wan nañu réew mi ne expert lañ ci ñaar ba ñetti mbir expert réseaux sociaux expert xoqatal ñoom ñi nga xam ne ñooy expert réseaux sociaux yi ñoo génnee seen liste def ko ci réseaux sociaux yi ne ñun lii lañu ñu investir waaw ba ñu ko génnee wane ne la ñu investir cuune gi ñuy wax ci ñoom dëggalaat nañ ko ndax ana ndeyu bind ñu laaj la juróom-ñaari nit góor jigéen walla jigéen góor nga tegle ko ba juróom-ñaar mat nga ñëw bind góor jigéen góor jigéen ba ci juróomeelu place bi nga ne foofu góor laa fay def juróom benneelu place bi nga ne def naa fa góor juróom ñaareelu place bi nga ne def naa fa góor taxañ say list dem déposer toog ba ca ëllëgam sa ca minuit nga nekk di defar sa list di laalaka laalaat daa di ne léegi président Macky moo nekk di lux mbat la ca biir DG ba yebaate weesuwul loolu kon lii nga xam ne moo fi xew tey mooy gannaaw ba ñu defee ñun li ñu war a def toog di xaar dañuy ñaan militant yi ak responsable Benno Bokk Yaakaar yi nag ñu taxaw ndax Barthélémy Diaz moomul réew mi maire ville de Dakar la bu fekkee ne amul capacité wala compétence su nekk maire sénégalais yépp ñun nañu am compétence su tànnal suñu bopp nag ki ñuy jiite ndax image population dakaroise la war a ne te image population dakaroise bi muy wane waxoon nañ ko nee woon nañ kenn warul jël Dakar di ko xeexee bañ koy wax nit ñi bàyyiwuñu woon xel mais tey wóor na ne Barthélemy Dias dafa jël Dakar bëgg ko xeexee ñun nag duñ ko nangu ndax Dakar rek la ñu am fii la ñu dëkk fii la suñu ay njaboot dëkk te nag réew mi dafa am yoon comme noonu la jàpp nañ ne force doit rester à la ñi nga xam ne ñoom dañu inexpérimenté politique ñoo xam ñun benn bokk yaakaar ba ñuy jóg boobu ba léegi ñi ngi wéy ci li nga xam ne moo jëm yoon ku nekk nag expertise réseaux sociaux wala expertise xoqatal ak saaga il faudra que les militants fassent face face face ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf